al-qurtubi loolu la wax qurtubi nee na juróom-ñett fukki aaya ngi ci saar yi ak juróom-ñett waaye boo ci qurtubi wax na ci ngëneelu saaru lu bare bare bari waaye xajaasi nee na ndax xadis yooya mu ci rottal yépp ci ngëneelu yaasiin ndax yu lam déet mu la jara wallahu aalamu bi sixatiha li yitteel moo dina saar wi màkk la wàccee mook saar yu bari ci tàmbalee ci baasin bu ñu maasut yu ci bari màkk lay wàccee mu ne saar wi dana gaarlu alquranul karim wax dana wax ak yonent bi dana saxal dékki dana léeb ay léeb dana xistaay nettali dana gaarlu ci kaw nu bii kàttanu yàlla dana discuter gi seen paspas bu yàqook seen jëf ju ñaaw na dana di benn ay mashahid ci mashahid yowm alqiyaam nag ci anam gu doy waar nag la ko saar moom di indi anam gu jot boo xam ne yit gu raglu la dana gaarlu tawxiid ak dekki dana ñaan doomu aadama mu tegtaloo ci yi muy yëg ba xam ci boroomam naka noonu dana fenloo yéefér yi nga xam ne ñoo indi ay lëntal ci jële diine dana dagg seenu lay yooyu yëpp ay mawduwaat la yoo xam ne saar wi daf koy wax ngir bëgg ubbi xolu doomu aadama bu tëju woon bëgg dundal bakkan bu dee woon ci gëm yàlla bee mu ñam mel ñak mu ñak mel ni doj nga xamne dafa wow wala doj gën ko toy ndax doj sax am ci yo xamne ndox dana ci gën ci tambali sar wi nak mawqifu yonent bi lay wax ak ñitam ñi yasin ajazina ne noonu dañ koy jangé yasin mu ne dañuy dañ nan yasin mu ne bu ñu xëccee yaa ji ñu idgaam nuun gi ci siin gi yaa siin mu ne noonu lañ koy jànge moom rek aaya la la shakk am na lu muy tekki ndax benn baat rek bu nekkee aaya lu rëy a ngi foofu waaye yonent bi nee na moom rek la ko boromam xamal mook boromam mbir moomu seen diggante la jaar loola mooy prix ma ca gën a rafet am na ci ulama yi ñuy wax ne aw tur la ci turu yonent yi alayhi ci turu yonent bi mu yaasin loola am na ñoo xam ne noon rek lañ koy firee ne yaasin yonent bi la su fekkee ne daf na yaasin yow yonent bi wal quraan yi géñ naa ci al quraan al xakim bu daa ji la lu muy géñ mu ne innaka yow la min al mursalin bokk nga ci ñu yónni loola dafay dëgëral ñi wax ne yaasin turu yonent bi la ndax lim ne ko innaka ala siratin yaa ngi nekk ci yoon mustaqimin wu daa ji jub tanzil al azizi wàcceeg ajinot ci kàttan arrahim ku daa ji yëram moo wàcce téere bi mu ne waaye lu tax téere bi wàcc mu ne li ko tax a wàcc day xam naa duwul na di ko jàngal ku wopp mu wér wàcculit pour ñu di ko yenu di ko takk muy jëriñ dara wàcculit ñu koy jàng ndax muy indi ay wërsëg ndax wërsëg ki koy indi moo koy indi même boo jàngut léeg-léeg ki ko jàngut sax ëppale la wàccul pour nekk ay musluwaay wàcculit ñu koy teg ci taabal pour mu nekk meebal wàcculit pour rafetal bibliothèque waaye lu ko tax wàcc mu ne li rek ngir nga waar ci xawman aw nit maa wuntira waaree futoon abaawum seen bàyyi ya fuhum ñoom xaafilan way sàggan lañ waar ñooñu moo tax téere bi wàcc laqad xaq ay na al qawlu wax jaala ak trim ñu gën a bëri ci ñoom wax ji yàlla waxoon ne dañuy dem ca mbugal ma ñooy feccali safara wax ji wàcc na ci ñoom fahum ñoom laa yuminuna duñu gëm innaa ñun day jaal naa def nañ fi anaqim seen doq ya ak laalan ay tënk fa yemoom ilal asqaani ba ca saqi baat ma ba ca saqin ya hum ñoom muqmaxuun ña nga nekk di way yëkkati yëkkati seen bopp sëgal seeni bët buqi ko ku koy muqmaxuun ak ñaawal la ndax xam nga ne ku ñu tënk ku ñu yeew ci sa baat boo yëkkatee sa boppit saw loos ak say bët du mën a dem ci kaw kon fawum ñoom muqmaxuun way sëgal seeni bët lañ te yëkkati seen bopp wala nga ne mbokk moo xam ne way alku ñu rek ndax loolu alku la naa def nañ min bayni aydihim seen kanam saddan ak tere wa min xalfihim seen gannaaw saddan ak tere ndax saddu mooy barage mbir boo ko baaree danga am na looy tere foofu seen kanam ak seen gannaaw yi am na saddu ba duñ mën a gis ca kanam faaxa ñu muur leen foofu ñoom laa yubsiruuna kon duñ gis bu sawawul aji yem la alim ci ñoom ñooñu yow yonente bi a anzartahum a anzartahum moo xam waar nga leen hamza gu jëkk gi istifham la gu ñaareel gi ci sixatu afala gi la a anzartahum waar nga leen ulamaul qiraa ñoom dañuy wax ne ñaari hamza bu ñuy dajee yépp ñu fataa leen ñu ne loola ci qiraa dafa diis mënuñu wax ah ah ñu kon nooy def dangay ngay jël hamza gu jëkk gi nga xam ne istifham la woon nga gàcce ko ci hamza gi nga xam ne ci baat bi la bokk ñu tuddee ko tashil muy hamzatu tashil nga xëcc ko nag ne anzartahum ñu xam ne ñaari hamza fi nekkoon genn gi dañ ko teg ci kaw genn gi mu tëdd fa anzartahum waar nga leen am lam tunzirhum wala waaruloo leen ñoom daal laa yuminoon duñ gëm rek innama tunzir naka da nga waar muy mën a waaru ma ñi tabaa ku nangoo topp zikra al quran wa xashiyati mu ragal arrahmaana yàlla bil xaybi ci faddu fa bashiru xamalal kii bégal ko bi maxfiratin ci njéggal waajiri nag yool karimin bu day ji tedd buur ne innaa ñun nax nu ñun nux yi nooy dundal almawta way deeya wa naktubu nu bindit maa qaddamuhu lépp lu ñu jiitaloon ci àddina waa saarawu am ak seen jeexit seeni jeexit loolu day wax ju tiit loola bind sa jëf daal doyoon na waaye bind sa jëf bind sa jeexit tiitlu na lan mooy sa jeexit jur nga fi doom fàggu nga fi alal alal ja lewut doom ja yaruwut jaarut ci yoonu lislaam dee nga baleen fi doom ja mooy yàlla yaa ko moom am nga cib cër alal ji ñu mooy ci yàlla ti yaa ko faggoon faggoo ko nu lew am nga ci ab cër ndax yaa ko fi ba te lewuloon kon luñ ci soppandikoo muy yokk sa bakkaar day yokk moo tax yàlla ni wa naktubu maa qaddamu wa asaarahum danañu bindit seen jeexit wa kulla cheyin lépp lëf nag ahsanahu takk nañ ko fi imaamin ci téere mu binin bu dee ji biir ci lañ ko bind dara duñu raw wadrib lahum masalan ashaabal qarya loola ba tàmbali xisib ba aman na darsu bi mu ngi war a mën a taxaw ca hum xaamiduun muy benn bind ak génn wàlla ca xisib ca darsu ëllëg ba dafa yokk wenn bind ndax xissa boobu dafa ànd moo tax mënu ko teqale mu ne na leen léebal waa dëkk ba soo leen léebalee waa ab dëkk danga ca xamee ne ki xas gëm yàlla lu mu sonn sonn dana daw ak imaanam dana ko denc ba du yàqu danga ca xamee ne imaan lu ko nit nëbb nëbb bés dana ñëw mu feeñ loola nga leen di léebal ca waa dëkk ba dëkk boobu mooy ban nee mooy intakiya intakiya fu mu nekk ma nga ci réewu turk ci chimaalu intakiya fa la xariya boobu nekkoon dañu amoon benn buur bu tudd antixis moo fa nekkoon ay xërëm nag lañ daan jaamu léegi nag mu amoon fa ñetti nit samaan faaruut ak maaluus ñett lañ ñoom ñett ñi dañu bañoon a jaamu xëram ni ñu dàq leen ñu daw làqu ca mel ne xunt nag ndeke ba ñu demee ca xunt ma fekk nañ fa benn waay bu màggat jeex takk mu ngi fa tëg tëdd wow koŋ ba ñu ñëwee ñoom ñett ñu ngi nëbb ne ñoom dañoo bañ a jaamu xëram di jaamu yàlla kañ fa fekkit loolaa ko fa làquloo woon waaye moom it day nëbbu ñett ñi ñu fekkante ca pax ma ñu ko yow góor gi loo fiy def noo tudd sax mu ne man maay Saalum damaa feebar at yu yàgg may faju nag ah léegi daal ma jébal sama bopp yàlla ñëw tudd ci pax mi fekk ndeke dafa bañ a jaamu xiram di làqu foofa gaañ it bañoon a jaamu xiram di jaamu yàlla ñëw fekk ko fa nag ñett ñaa ngi nëbb waa ji waa jaa ngi nëbb ñett ñi waaye yàlla moo koy feeñal si léegi ñeent lañ am na keneen ku toog ci dëkk ba tudd Miltaas moom it dafa gëm yàlla di ko nëbb waaye Miltaas nag xamoon na xibaari Shalum ne dawoon na làqu ji ca àll ba kon juróomi nit a ah ñu toog sama aan nag moom moo ànd ak ñaar ñi sama aan law nag Faaruud ak Maaluus sama aan nag yàlla yónni na ko yàlla ne ko yow laa yónni ci dëkk boobuy jaamu xiram dem fa ci chimalu intakiya buur boobu ñu naan antixis demal dal ci kawam defanteeg moom ah sama aan am na soxla mu wax gaaya mi ne man kat mbir xew na fi ndax yàlla yónni na ma léegi nag dem yàlla yónni na ma fokk ma def li wax bay leen fii ci xunt mi te dem ca dëkk ba dal di dem ba mu demee di nëbbatu di waaraate di nëbbatu ñu wax ko mu neen moom dafay dafay jàng seeg dafa ut si xam-xam gannaaw ga mbiram daal buur bi dal di ko sikk jàpp ko tëj yàlla daal di yónni Faaruut ne ko yónni naa la demal ca dëkk ba léegi Shalom daal di gëndalikoo ak Faaruut ak Malus ñu ne su ngeen demee ca dëkk ba Miltaas suñu sama mbokk la ku gëm yàlla la gëndalikoo Faaruut ñu yónni ko men mu dem léegi Shalom moom rek moo fa des moom Malus ba nga xamee ne gis nañu Miltaas ne koy ñun kat yaa ne ci dëkk bi waaye ñoo nga jógee ca Saalum sa mbokk ma mu ne ah Saalum wax nga dëgg mu ne ah sa secret feeñ na kat ku gëm yàlla nga te ne ci dëkk bi yow Miltaas di ko nëbb Saalum ma demoon ca àll ba nag gis nañ ko wax nañu ko te ñun nag yàlla nu yónni kon Faaruud yónninte la samaan yonent la ndax jàppoon nañ Faaroot bay nañ ko suñ ci moom daal dara lu bon Faaroot ñëw fekk si samaan ñoom ñaar nag ñu nekk ñaari yonent Miltaas nag moo leen di dimbale ci biir dëkk bi ah Saalum nag ma ci àll ba moom léegi toog fa moom Malus Faaroot ak samaan ñu ngi ci dëkk bi fekk fi Miltaas ñu toog ñoom di jaamu yàlla di nëbbu ndeke am na ku feeñal seen mbir ku ñu ku ñëwaal di wax ak ñoom rek dañ naan ñun daal mbirum nguur gi suñu yoon nekku ci ñun daal xikam daal ak xam-xamu docteur la ñuy toppatoo ba nga xamee ne loola xew na ñu jàpp leen ñu feeñ ñu jàpp leen bañ leen tëjee ñoom ñaar miltaas nag dal di jël xibaar ba dal di ko yónni Malus ak Shalum ni jàpp nañ ñaari yonent yi kat léegi nag mbir maa bu ngeen ne ngeen wut benn pexe boo xam ne dangeen fexe ba ñu mucc su loolu amut kat ñii boo sàgg ne ñu rey leen Shalum ma nekkoon ci àll ba feebaroon moom it yàlla yónni ko ndax moom moog maalus rek fa desoon mu ne léegi nag nañ def pexe ñun ñaar pour génnee ñaar ñi jàpp ñoom ñaar ñu ñëw ba ñu ñëwee fekk nañ ci dëkk bi Miltaas mu ngi nëbb gëm yàllam waaye moo leen juróomeel te Saalum moom ba muy daw mel ni ku feebar buur bi daf ko àtte woon ne bu feeñee nañ ko rey loolu dañ ko àtte woon mu dem na bu foofu mel ni ku feebar ba ñoo ñu fekk ko fi ba ñu yónni ko lii moo xew foofu maalos yàlla yónni ko moom itam mu ñëw dëgg dugg dëkk bi ne moom benn touriste la tey wut xam-xam ñu laaj ko mu ne ab docteur la ñu boole ko buur bi mu waxtaan ak buur bi buur bi def ko xarit ñu xarito lu yàgg mu ñaan buur bi nag ne ko sama xarit nga ñaari baado la yooyu ñu fi tëjoon ma doon ñaan nga bàyyi leen mu ne aha ah danga am ak ñoom benn xam-xam ci ñoom mu ne déedéet dama ko dégg rek ñu naan am na fi ñaari ndong yi fi ñëwoon di jàng nga leen comme sama xarit nga ma ñaan nga bàyyi leen ndeke am na benn waay bu fa dee woon ñu def tax nit néew bi ne duñ ko suul dañ koy bàyyi ba baayam bi tukki ñëw ñu door ko suul ñu denc ko rek ci benn béréb fekki waa moom fi ñu ko denc ma ngi ci safara rek xamuñ ca dara léegi nag mu ne dama doon ñaan nga bàyyi gaaña ñu bàyyi gaañi gaañi génn buur bi am sikk nag ci ganam gi nga xam ne mooy Maalus ne na docteur la mu ne ah kay laa mën naa faj yàlla dénk na ma ay xam-xam ñu ne ko balaa ñoo xam ne xam-xam nga am ku dee kii te bàyyam ñëwut te mënuñ koo suul te bàyyam ñëwut danga koy dekkal bu dekkee ñu xam ne yow da am xam-xamu docteur bu bu mënul dekki nag sikk nañ sa mbir yow mii yaa gaañee yéen a bokk mbir mu ne indi leen néew bi ñu indi ko muy ñaan ñaari gaayam yi ñu te leen ñoom it ndekk ñu ngay ñaan ci suuf ñu ñaan di ñaan di ñaan ba yàgg waa ji yëngu ba yàgg waa ji dal di dund dal di jóg toog daldi di ne antexis buur mu ne ko naam mu ne booy dee dem safara bi ma dee ba tey teena safara bu nekk dugal nañ ma ci bu fekkoon ne bu fekkoon ne ñett ñu baax ñii ñëwuñu fi mu ne ñan ñett ñu baax mu ne kii ak kii ak kii mu ne aha ndeke ñoom ñëpp ñoo bokk mbir sama gan gi naan docteur la naa bay ñii ndeke moom ñii ñoo bokk mbir dal di jàppaan ñëpp ku nekk ne dañ leen di rey leen jàppee nag néew ba ne ko man dey lii ñu nekk bu ñëboo reyaale ma ci ndax deewoon naa ba pare waaye gëm naa lii de ñoo nekk ci dëgg nangam ak ki nangam coow la dal di jóg muy ñetti kéemtaan ñii ñëwoon ay gan lañ ay yonent lañ néew bi newoon balañ ko su baayam ñëw dekki na dëkk bi yëngu na te buur bi ne fokk mu rey leen dëkk bi yépp yëngu na léegi ba ñu yónnee ñaari yónninte ñu jàpp leen yàlla dëgëra leen ak beneen ñetteel ñu jàpp ñëpp géew nag ne dañ leen di rey ba ñu demee ba dara desul lu may reyee ci des rek ba ngannaa ngànnaay génn bëgg rey Saalum ma dawoon ñu àtte woon ko waroon koo rey mu dawoon kenn gisu ko mu ne moom dafa feebaroon te doon ca xuntuma gaañu fekk ko fa mu dégg ne ña ngay rey ñett ñette yonente lañ mu daw dal di ñëw rek ne cëpp ci géew bi ne buur xamoon nga Saalum mu ne waaw mu ne ki nga àtte woon ne koy rey mu ne waaw mu ne ko man la ñu dal di fàtte ñett ña ñu daw làqatu ñu jël shalom nak dal di ko ray mu jël bakkanam ba jotté ko ñett yonente yooyu burne wadrib sa dallawum masalan aw ashab al qaryati wa dëkk ba is jaaha ba dikkele ko almursaloona ñu yónni ña is arsalna ba ñu yónnee ilayhim ci ñoom is ni ñaar muy samaan ak farud fa kaddabuhuma ñu weddi leen fa azazna ñu dëgëral ko bi taalitin ci aji fa qaalo mu ne innaa ñun dey mursaloona ñu yónni lañ ilaykum ci yéen qaalo ñu ne maa antum déet yéen ilaa basharun lu may ngeen di mbindee mislunaa comme nun maa ansala wàccewut rahmaanu yàlla min cheyin dara in antum déet yéen ilaa tukaddibuun lu may ngeen di nar qaalo ñu ne rabbuna suñu borom day yaalamu xam na ne innaa ñun la mursalun ñun yónni leen ilaykum jëm ci yéen wa ma alayna waruñu nag ilal balaaxu lu mooy jottali al mu binu gudaay ji biir xaaloo ñu ne innaa ñun sax tatayar naa ñoo ngi gaaflu bikum ci yéen ba ngeen fi ñëwee ba tey amun dara la layin lam tantahu bu ngeen day daytalawut ci seen wax jeeg seen jëf jii day la narjumannakum danañu jam leen wala yamasannakum dana laal leen min naa ci ñun azabun bugal alimun mu daay ji metti xaaloo ñu ne tayrukum sen gaf kay maakum mu ngi and ak yeen ndax ku judd rek gaf nga ndax gaf moy nara deete ku judd rek ya ngi and ak sa gaf wa jaa amu dik min aqsal madina si jëm ci gën jaa sori ci dëkk ba yasa muy dox rajulun bi na yasa muy dox qaal mu ne yaa qawmi ittabuu topp leen may shalum man ngeen warona a ñi ñoo nekk ci dëgg ittabuu topp leen almursalina ñu yónni ñi ittabuxu topp leen man koo xam ne laa yasalukum du laaj leen ci topp gi ajaran benn yool uhum ñoo te ñoom muxtu doon way jublañ wa maa lii loog man maa tey loog man laa abudu du ma jaamu la si yàlla mi nga xam ne fatara ni bind na ma wa ilayhi ti ci yàlla turjaxuuna defi delo leen attaxisu ndax damay jàpp min dooni lu yàlla aleetan ay yàlla in yurid ni déddi na ma rahmaan bi in yurid neen dem na ma na rahmaan yàlla ci man bi durin lor laa tax ne du jëriñ يلا يعني كمان شفاعتهم كنا ورا مشيون تس ولا ينقذون الدنيا ما قتلي إني من إذن بابله بفضل إنك ناتي غير مبين إن قدي إني من دي آمن تجمنا برابكم سين برام فاسمعوني من دي جمنا لين فاسمعوني دغلو لين قيل وخفكو نرال ديكو جاب دال ديكو ري باي نيتي يونتي مودي قيل وخف ني ادخلي الجنه الجنه يو قال من اسكي لولو ليت قومي yelente sama ni ñi yàlla moo nañu xam li li ma li ma dal li ma dal mooy deenaa dugg naa aljanna nit ñi dunda waroon nañ koo xam bi ma xafara ci la baal na lii ñel ma rabbi sama borom wa jaale nii mu def ma minal mukrimina ci ñuñ teral ña yàlla ne baal maa leen koy maa leen koy jottali naa ma anzalna wàccewuñu ala qawmi ci nitam ñooñu min baadi ci gannaaw min jundin benn lil min asamaay ci asamaan wa ma kunna nekku ñun munzilin di way wàccee in kaanat di way wàccee in kaana déet muy nekk ila sayxatan lu may xaacu waaxidatan gi di genn rek ci laa dine tukkee fa isa ci betteel hum ñoom ñëpp xaami doon صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا مولانا ورازقنا من الشاهدين اللهم انصرنا بحق القرآن الكريم اللهم انصرنا بحق القرآن الكريم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وزد في أرزاقنا اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين اللهم اشف مرضانا واغن فقراءنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك اللهم انا نعوذ بك من الفتنة والفوضى ومن الجوع والجب واكشفنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انصرنا ولا تنصر أحدا علينا وزدنا ولا تنقصنا انصرنا ولا تنصر أحدا علينا احفظنا واحفظ بلادنا وحكامنا وعلماءنا ولا تنصر أحدا علينا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين أحمنا واحمي بلادنا وحكامنا وعلماءنا من الفتن والفوضى ومن الجدب والجوع والخوف اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد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 mu ne yaa xasratan woo naa ak alal ibaadi ci jaam yi maa yaatihim du dikkal leen min rasulin ci yonent illaa kaanoo lu ñu nekk yastahziuuna di yejji bihi ca indi awalam yaraw buur ndax xamuleen ndax ñoom xamuñu ba seet kam ñaata alak naa lañu alak qablahum lu leen jiitu min alquruuni ci maas annahum ñoom laa yarjicuuna duñu dellu si ci ñoom ana ñaata xeet lañu alak te benn xeet dellu si wut wayin kullun naka képp ci ñooñu lama jamiun ñoom ñépp muxdaroo nañu ñu teewal lañ la day naa ñun buñ leen soxla wa aayatun am na kawtiif lawum bu ñeel leen moo di ne al ardu suuf si al maytatu suuf si nga xam ne aji deelamu axyaynaaha dundal nañu ko ci taw wa axrañ naa ñu génnee min haa ca moom xabban pepp fa min hu ci pepp yooyu jógee ci suuf si ياكلون لنيو لك وجعلنا نيو دفيا تي سوف جناتنا اي تول من نخيل تي لالا موم اي تندر ملوا عناب اك قيت رزين وفجرنا نيو بلل فيا تي سوف من العيون تي قيت سيفد ييب لياكلوا ngir ñu lekk min samarihi ca meññatam ma wa ma amilathu ñuy lekkit ca la liggéey na ko ay mu ne ndax duñu sant yàlla mi def loolu subhaanalladi sant ñeel na yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu al azwaaja xeet ya kullaa yépp mimma tumbitu nekk na ca la dina saxal ko al ardu suuf si wa mi wa min anfusihim ak ci seen bopp wa ma ak ci leneen loo xam ne la yaalamuuna xamuñu ko waayatun am na beneen kawtéef lahum bu ñeel nit moo di ne alaylu guddi gile nasluqu danañu bocci génnee minu ci moom naara bëccëg fa isaahum ci betteel mudlimoon ñu nekk di way lëndëm wa shamsu janta tajri day daw li mustaqarin ci sax waay laa bu ñeel ko zalika loolu taqdirul azizi mooy dogalab yàlla mi nekk di aji am kattan al alimu ku di aji xam wal qamara weer qadarnaahu dogal nañ ko manazilaayi wàccuwaay muy dem di ñëw di jeex ak di màgg ata aada bu mu dellusi si kal urjooni ni ki bànqaasu tàndarma alqadiimi bu daa yàgg na muy lonkaloo buy teru noonu lay mel te laa chamsu déet jant bi yan baxi di yàlla laa ñeel ko an tudrika muy jot alqamara weer wa wala leylu du caageen guddi gi it saabiqu nahaari mu jiitu bëccëg bi waxtu wu nekk rek bu guddi gi jeexee bëccëgay ñëw dañu juum tegale ñaari guddi mu wala ñaari bëccëg wa kullun képp ci jant beeg weer wi yasbaxuuna ñi ngay feey fi falakin ci seen nguunu waaye tun am na kawtéef law bu leen anaa ñun xamal naa yen nañu duriyaatahum seen sët ak seen doom ya fil ca gaal ga almashxuuni guddi gu ñu feesal mooy gaal ak noox ga wa xalaq naa ñu bind lawum ñeel leen bi misli ci kemam maa yarkabuun la danañu war ko way nasha suñu neexee noxriqhum ñu labal leen fala sarixa jël aji xettali lawum ñeel leen wala hum den ñoom yunqasuuna defi musal leen illaa rahmatan lu may yërmande min naa bu bàyyi ko ci ñun wa mataan ak xéewal ilaa xiinin ba ci jeexab seen ab dig ne loolu yëpp kaawteef lay jógee ci yàlla bàyyi na loolu mu ñëw léegi ci nettali dara lu aju ci mbiru yéefér yi mu ne wa isa qiila ndem waxeef na lawum ñeel leen ne ittaqu ragal leen maa bayna aydikum la nekk seen kanam mooy la xala ñëw wa maa xalfakum ak la nekk ci seen gannaaw laallakum ndax yéen turxamuuna defi yéram leen wa maa taatihim déeddi dikkal leen min aayatin benn kawtéef min aayaati rabbihim ci kawtéefi seen borom illaa kaanu lu muy ñu nekk muridina di way dëddu anha walis kawteef ga wa ida qiila ndem waxeef na la lawum ñeel leen ne anfiqu dundale leen mimma razaqakum ca la wërsëgal na leen ku laahu yàlla na ngeen ciy joxe qaala tontu allazina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ lillazina ñeel ñi nga xam ne amanoo gëm nañ ñu ne a comme ñi ñoo ànd yàlla nañ leen ba rek ñu leen di jox ndax ko yàlla na la yàlla joxal boppam ñu naan anutimu ndax dañuy leel man koo xam ne law yashaaw bu neexee laahu yàlla rek ataamahu mu leel ko in antum déet yéen illaa fi dalalin lu may ngeen nekk ci réer mu binin gudaa ji bir wa yaquluuna ña nga naan mata haza alwaadu ana kañ la bile dël in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu maa yanduruuna buur ne déet ñuy xaar illaa sayxatan lu may ak xaacu waaxidatan boo xam ne genn la taaxuduhum mu jàppaleen wahum ñoom yuxassimuuna ñu ngay xuloo ku nekk naan sa morom yaa ma réeral na yastatiuuna duñu man nag tawsiyatan dénkaane wala yarjiuuna ñu dellu itam ilaa alim seen ñooñ wa nufixa waleer fi sóori ca bufta ba fa isaawum ci betteel ñoom ñëpp yan siloona ñu ngay summeeku di génn minal ajdaasi bàyyee ko ca bàmmeel ya ilaa rabbihim jëm ci seen borom xaaloo ña nga naan yaa way lanaa toskariñ yàl nañu man baasana kan moo ñu dekkal min marqadina ci suñ tëdduwaay bi haza bii kan moo ñu ci dekkal ñu ne haza lii ma waa waada mooy la dal na ko rahmaanu yàlla wa sadaqa ndeke wax na dëgg al mursaluuna ñuy yónni ña in kaanat deen muy nekk illaa sayxatan lu may genn xaacu waaxidatan goo xam ne genn la fa isaawum ci betteel ñoom ñëpp muxdaruuna way wañu ñu ñu teewal lañ la day naa fa ñun jamiun ñoom ñëpp fal yow ma tey nag yàlla ne taxaw ngeen ci sama kanam laa tuzlamu defu tooñ nafsun bakkan cheyan dara lu waay def rek ñu fay la wala tujzaw na defut fay leen itam illa ma kuntum lu may la nekkoon ci àddina na di def ko léegi nag waa aljanna nan la ñuy nekkee waa safara itam nan la ñuy nekkee mu ne ina asxaab aljannati naka waa aljanna al yowma tey fii shuglin ñoom ñoo nekk ci soxla sa maanaa ku ci nekk am nga léegi loo soxlawoo ci sa xeeti bànneex fàkkihuuna ñoom ñëpp ñu nga nekk ñoo xam ne ñu ñuy xéewal lañu hum ñoom wa azwaajum ak seen jabar ya fi dalaalin ñu nekk ca keppaar ya alal araiki ñu nekk ca lal ya mutakkiuun ñu nekk di way soonu lawum ñeen leen fiyaa ca aljanna faakiyatun ay fay téef walawum ñeen leen maa yaddauna lépp loo xam ne lépp loo xam ne soxla nañ ko maanaam dinañ ko woo wala maa yaddicuuna lépp lu ñuy mébét ndax baatab uduu alayya maa chita loolu mooy mébéta lu la neex ma jox la kon maa yaddicuuna lépp lu ñuy ñuy mébét salaamun ñu naan leen jàmm yann nekk ci yéen qawlan mbir mu mu nekk di wax nag min rabbin mu bàyyee ko ci borom rahimun bu dee buñ bu dee aj boo xam ne aji yéeram la mu yàlla nag ne ñooñu ñooñu nekk ci aljanna waaye am na ñu doon jéem a raaxaloo ci biir te fekk waa safara lañ yàlla ne wamtaazu jàqeeku leen jàqeeku mooy xàmmeeku leen génn leen al yow ma tey ayyuhal na yéen def kati bàkkaar ya allama aadi ndax ndax man yàlla fa suma woon kóolëre ilaykum ci yéen ci àddina naan leen yaa bani aadam laa taabudu bu leen jaamu cheytaan innahu naka cheytaani lakum ñeel leen aduwun noon la mubinun bu daa ji bir jig noone ndax waxumale woon woon ci àddina ne an ibuduni jaamu leen ma haza jaamu yàlla bàyyi lu duwut yàlla siraatun yoon la mustaqimun woo xam ne aji jub la buur ne walaqad adalla réeral na minkum ci yéen jibilan ak maas katiran gu bari afalam takunoo ndax nekkuñu woon taaqiloona di am xel haadihi lii jahannam mooy safara lati bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuwaaduna defi tëkkoo leen ko islawha jaaru leen fa al yawma tey bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon takfuroona di weddi ko al yawma tey ndaxte mu ñun day ñooy kaste ala faayim seen gémmiñ ya wa tukallimunaa di waxeek nun ñooy ñun yàlla aydihum seen loxo ya wa tashhadu tey seede loolu arjuluhum seen tànk ya bi maa kaanoo ci lañ nekkoon yegg si boona di faggu ko lépp bu ko loxo yi di nettali tànk tànk yi di ko seede amul benn secret boo mën a nëbb yàlla walaw na su ñu neexoon la tamas naa ñu mar maral mooy maasale ala aynum seen gët ya fa tabaqu ñu wax leen ne njëkkante leen siraata yoon wa kon faana yubsuruun ana fan la ñuy gisee bu fekkee amu ñuy gët walaw na shaaw suñu neexoon la masax ñu masax leen soppi leen leneen ñu nekk xeer walla ñu nekk suuf wala garab ala makanatihim ku nekk béréb bi nga taxaw nga nekk fa wa ma stataaw duñ man mudiyan wéy wala yarjiuna duñ mën a dellu si wa man nu amirhu ku ñu dundal ci addina lu yàgg nu nakkisuhu nu jot ko mu dem ba yàgg mu dëpp dellu si fil xalqi ci bindam afala yaqiluun xanaa amu leen xel ci yàlla mi def loolu bàyyi na loolu léegi ñëw na ci saxal benn yàlla daqal ko bokkaale ak wane ne yonent bi mënula woy ndax woy waxoon nanu ci suratu shuara ana ñan ñoo war woy moo tax mu ne wa ma allamnaahu xamalu ñu yonent bi shuara woy ndax ku woy boo sàgg ne wax lu ëpp te moom du waxee bànneexu bakkanam wa maa yanbagi yellul la ñeel ko muy way in huwa déet li muy jàng illaa dikrun lu mooy mu nekk di waar wa qur'aanun mu nekk di alqur'aan mu biinun bu daaji bir li yoon ngir mu waar nag ci alqur'aan man kaana képp ku nekk na rek xayyan di aji dund waaye ki xas dee yaag alqur'aan teqale ko ngeen joteetu leen dara waaye kii dund moom lañ ciy waar wa yaxiqatay wàcca alqawlu wax ja alal kaafirina ci yéefér yi awalam yaraw buur ne ndax xamuñu ne annaa ñun yàlla xalaq naa bind nañu lawum ñeel leen mi ma amila ci la liggéey na ko ay dinaa suñu loxo anaaman ñu di ay xeetu juru kër gi yépp fahum ñoom maalikoo ñu moom laa ñeel ko bu neexoon yàlla tey ewle nga moom sa mbaam mu wax ne mbaama lay moom koy doo ci mën dara waaye ñoo la bindal juri kër gi ba pare na yéen a koy moom wa dalal naaha ñu tàggat ko ndax ponkal mu tol ni gëlëm soo ko waree sëf ko dafa am ko la ci dimbale muy yàlla waaye waroo ko man lawum ñeel leen fa min haa ci juru kër gi rukkoo booum la seen waruwaay fa min haa ci juru kër gi yaakuloona la ñuy lekk wala um ñeel leen fiyaa ci juru kër gi manaafiu ay njariñ wa mashaaribu ak i naanuwaay afala yashkuruuna xanaa duñu sant yàlla wa taxadu jàpp nañ min dooni laay lu dul yàlla aaliyatan muy yàlla ndax ñoom yun soroona ದೇವಿ ದಿಂಬಲಿಲೇನ್ ಲಾಯಸತ್ಯೋ ನವಾಯೆ ದುನ್ಮನ್ಯೋಮ್ ያለየዩ ነስረሁም ሴን ድንበል ወሁም ኞምሳ ጅንዱን አብሌለኝ ለሁም ቡኝ ያለን ሙሕደሮነኝ ኞክ ኝፕኘኝ ደንጃሙድ ሁኙ ያለ አብሌለኝ ቡይቴውጭ ሰፈራኛውም ፈላ ያሕሱንከ እንገለቡት ይሎለ ቀውለውም ሴን ዋህጂ ይናኙን ያለ ናዕለሙ ደነኑ ቀም ማየስሩን ለደነኙ ንብኮ ወማ ዩዕሊኑን አግሊፕ ለደነኙ ሰኛልኮ muy saxal dekki mu ne awal ala awalam yara ndax xamut wala nga ne ndax gisut ubay ibnu xalaf ak aasi ibnu waayil assami dañoo dem romb kaangam bopp boo xam ne màggat na ba fënax bët yi dem na yor gi dem na am paxa ci des ñu lonk ko ci seen aw yët ñu fekk yonent baa ngi toog toog ñu sànni kaang ma ca seen kanam ne yow nee nga dekki dafay am kaang mii ba mel ni kan moo ko mën a dekki dekkalati ak ni mu fënaxeeg ni mu yàqoo ndax dana ndax kii mën nañ koo dekkal yonent bi ne ko waaw waaw yàlla dana ko dekkal dekkal la yow yóbbu safara moo tax mu ne awalam yara ndax xamul al insaanu nit ne anaa ñun yàlla xalaqnaahu bind nañu ko min nutfatin mu bàyyee ci toqent fa isa ci betteel xasimun mu nekk di aji xuloo mubinun ku di aji bir lu yàlla def mu sàkk ci lu muy wax ak lu muy weddi wa daraba mu dem bay sadd lanaa ñeel ñu masalan aw misaal wa nasiya fàtte na sax xalqahu bindam ba fàtte na ni ma ko bindee woon qaala mu ñëw tey di wax naan man yuxyi ana kan mooy dundal al izama yaxya way yette ñoom ramimun ñu nekk daaji funax xul tontul ne yuxyiha dana dundal ko allazi yàlla mi nga xam ne anshaaha sos na ko أول مرة تيونو جكوا وهو يلا علمنا جي قملا بكل خلق بيب بند الذي موي كيغا خامني جعل دفنا لكم ñeel leen من الشجر ci garab al akhdari guda ji tooy mu def ca naaran aw safara fa isa ci betteel antum yéen tooqidoona ngeen di taal minu ci safara wa awalaysa alladi ndax nekkut yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu asamawaati asamaan wal arda mu bind suuf ndax nekkut yàlla moomu bi qaadirin di aji attan ala an yaxluqa muy mën a bind mislahum seen kem cig dekki bala akay huwa yàlla alxalaaqu yàlla mooy bindaakoon ba alalimu bu di aji xam innama amruhu naka mbiram moom yàlla ida araada su bëggee seen dara an yaquula day wax lawo ca mbir ma kun amal fa yakunu mu daal di nekk fa subhaana alladi sa la ñeel na yàlla mi nga xam ne bi yeddi nekk na ci loxoom malakootu kulli shay'in moomee rek lépp lëf way lay ci yàlla turjauna la dee fi delloo leen barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan